axdi kutbihim ànd ak jàpp seen téere jëf waxindal mawaasiini ak fa balaas ya waxinda buróosil xalqi ak fa rombuk mbindeef yi bil jisri ci pomuk siraat pom ba tudd siraat faj xalan yàlla na nga def muróor yi sama romb ka ax fal barax yi mu mel ne gën jaa làqu yi melxat fii daalikal jisri ci boobee pom boobale pom muy siraat googee sëñ bi dama lay ñaan nga jàpp ci sa loxo bañ maa bàyyi saa bopp foo mën toll ci xeetu tiis ak tartar rawante na bu ma tolloo ci faatu ak buñ ma dugalee ci bàmmeel rawante na bi yaari malaayka yi ñëwee bay laaj boobaa nag mu wéttali ba du ma wét bis bu yàlla dekkalee mbindeef yi yu tasaaroo di leen di wang-wangal jëme leen ca fañ war a taxaw nag ma taxaw bu baax ak bu ñu àggee ca fañ yi taxaw ci bis penc ba nag ma defal ker goo xam ne du ma yëg tàngaay sëñ bi biñ dee xisaab mbindeef yi téere yi wadd kenn ku ne war a jot téere jëfam ak di peese jëf yi ba xam nu jëf yi demee boobaa nag ma dimbale ba duma jaaxle ma nekk ci yiw woo xam ne rek sama xol day sedd buñ tolloo jaar ci siraat it nag ma fa taxaw ba moroom forom bu gaaw a gaaw ni ki mel xat ku ne raay rek daal làqu fa saasa noonu mel xat ga gaawee ne raay yi daal di làquwaat sama jéggi siraat nag gaawee noonu war fa xan na yàlla na nga yëkkati makaana naa sunu daraja mbaa sunu béréb xinda xilli yéena fa xilli yéena maxal Moustapha ànd ak kañu tànn wal awliyaay ak waliya dawil xabri ña di waroom daraja alayhim yàlla na doole nekk ci ñoom salaatullahi teralug yàlla suma salaamuhoo topp dolli wóoloom kama huwa nit nga xamee ne moom yardaa dana ko gërëme lil jamihi ñeel ñëpp bila xasrin ci ak takk sëñ bi ci gën jaakawee àjjana na nga nu fa wutal béréb ba gën a yëkkatiku ñu gën koo fonk gën koo taamu nu ànd faak yonante beeg saxaaba yaag waliyu yàlla may daraja yooyee yonante bi nag la ñaan yàlla dolli ko teraanga ak jàmm ak gaayam yooyee na nga xam ne moom la ko gën a gërëme na mu gën a taamoo salaatu ak salaam mel na yal na ko yàlla defale noonu moom ak i mbokkam ak i saxaabaam walahu aydan salaamun lii ab nuyoo la min ibrahima juuba bu bàyyikoo ci ibrahim joob li kaamilin ñal aji mat raxibil finaa kuy aji yaatu ab ët jammin na daa kuy aji bari ak tab wal fadaayil ak i ngëneel huwa moom ibnu xabibillahi mooy doomi xabibillah ahmadu turam mooy ahmad man ka nga xamee ne laxoo ñeel na ko maqaamaatu sidxin maqaamay dëgg ajasat yoo xam ne lottal nañu lil mu xaawili ñeel aji sàkku ja nee na ibrahima jóob mooy nuyu sëriñ bi nga xam ne yàllaa ko matal defal ko may yu bare bari ak ngëneel yu bare bari mu bokk ci sëti Habibullah tudd Ahmadou Bamba yàlla may ko xeeti maqaama yoo xam ne kenn mënta jéem ba am yu na mel xadiimu rasulillahi mooy lëg yëkkatu yonante yàlla ba baabu tariqi yi te mooy buntub yoonam wa siraajunte ab làmp la mu niirun bi aji le mu niirun bi aji leeral nuuru foo bopp leeram nga xëyru aafilin du aji suux nee na moom la yàlla may muy liggéeykatu yonante bi di buntub yoonu yonante bi di làmp bu leer tey leeral boo xam ne du suux mukk maanaam du fay mukk moom làmp boobu mu jaddidu rasmi diini mooy aji yeesal màndargam diine baax da xafaa yi ci gannaaw ràppam nga mu shayidu arkaanil huda mooy aji yëkkati ponki jub xayru kaamilin mooy ngën ji aji mat ba diine demee bu mel ne dafa ràpp neexatuta xàmmee moo ko yeesalaat bañ mën koo xàmmee jub dafa mel ne dafa daanoon ci suuf moo ko yëkkati ba ñëpp xam ne lii mooy jub waliyun waliyu la jaami xun wi aji boole li ashtaatil fadaili ñeel way tasaarooy ngëneel ya bii ci moom laaza la wéeru fit taxqiqi ci ak dëggal kulul xabaili mboolem giir ya nitu yàlla la koo xam ne yu baax yi daat saaroo ci nit yàlla yi yépp yàlla da ko boole ci moom nga xam ne mboolem giir yi ak mbooloo yi ci moom la ñuy wéeru la inkaana gi naa ne dem nekk na lil axyaar yi di ñel tànneef ya fadlul ngëneel ka an jumin ni ki ay biddiw fa maa xoo déet moom illa shams dara muy jant ba baynal afaadili ci diggante way gën ña nee na su fekkee ne tànneef yi da nga leen misaale ay biddiw ndax seenu mbaax da ngay wax ne kon sëñ bi moom mooy jant ba jant nag bu xasee feeñ biddiw du feeñati masaayaahu ay ngëneelam laa tux saa deefu leen mën a takk benn tuxin ci tudd wa mis barin ak xalima wa jadd waawate ak tabam muxjilun aji rusloo la kun la waabilin wépp waame xàqan ci dëgg-dëgg ay ngëneelam moom mëneesu koo jeexal ci wax mbaa ci bind ak mayam itam rusloo na lépp luy xeetu waame ndax barik ay mayam fatan waa ji baax la zaahilun kuy aji gëlëm an kuli kawnin walis mépp mbindeef bi rabbihi ci jeex ci boroomam ak kàttan ak boroomam walakinahu waaye moom xëyru zaahilin du aji gëlëm an rabbihi walis boroomam waa ju baax la joo xam ne fàtte na lépp lu bokkut yàlla dëgmal yàlla yank yàlla ya kese nag te du ko waaju baax la joo xam ne du fàtte yàlla mukk waaye dafa jeex ci moom tàkk ba fàtte lépp lu boobu te yàlla xadd asra xeebloo na bil badri ca weer wa wa bil baxri ak ca géej ga mud ataa dirub dikk na rahmatan mbir mu muy yërmaande lanaa ñellu xawsan tey xeetal li kullil amaatili ñel mboolem way gën ñaa nee na moo gën a yëkkatiku gën a rafet weer gën a tabe ëpple géej yàlla andi ko muy sunu yërmande di xettalu ñëpp ba ci sax ña baax ñaa baax xettal la ci ñoom ataala yàlla na yàggal ilaahul xarshi bu aras maxyaahu dundam ga aminan mbir mu muy aji woolu wa ax taaxu te mu jox ko maa loo xam ne faaxat kawe na kulli am munaa kulli amilin bébéti jëpp aj yaakaar yal na yàlla gën ko fee yàggal gën koo jox jox ba lam koy jox kawe njort ak bébéti mboolem ku dikk di ko yaakaar bi jaahi nabi ci daraja yonante ba al mustafa ba debin tànn xayri xalqihi mi ngën ji mbindeefam yi alayhi yàlla na doole nekk ci moom salaamallaahi tereel yàlla ak jàmmam moo opil fadaili kay aji joxe ngëneel ya ne asalaamaan tas ne ko dañoo jublu asalaatu wasalaam maxal aali ànd ak ñoñ ña wal ashaabi ak saxaaba ya miftaaxi juudihi ñay caabi tabam nga bu dóorit bijaa ña di weer lanam nga alhaadiina ña di way jubal ma kulli kaamilin ànd ak jëpp aji mat lim ñaanal sëriñ bi la ñaan yàlla defal ko ci daraja yi yonante bi mu ñaan yonante bi yàlla defal ko gën ji salaatu ak salaam mook ay mbokkam ak ay saxaabaam ñu baax ña ak ña topp ci ñoom te baax tey baaxal lahu aydan ilayka jëm ci yow dong ayaa ustaazu yow ustaaz bi natt wi la ñuy taxañ xifaaraha seeni tuunga seeni àll wa nax juru te nuy tong xubban ngir sopp lil wisaali ñeel jokkonte ga diyaaraha seeni këf ilaa an lazim naa jëm si ba ma nuy fóon min ko ceew raaxata haashimin tengal haashim tunas siika bopp daan la fàttiloo juudan ngir ak tabe wablaha waameem wa wala wablaha seen waame wa wa bixaaraha ak seen géej fekkutoon mu jiital fu xifaaraha di dellu xëy na kon daa jàpp ne xam nañ ko sëriñ bi dañuy taxañ àll yu jëm si ci yow te nun ñëw ci yow rek jaral na lu nekk doon ci sax dañuy gental kër yëpp gental waa kër yëpp te agsi ci yow rek baax mu daal noo ngi ñëw bàyyi lépp luñ jàppoon ba ba ni fóon sa téngali sa téngali nga xam ne moo gën a tabe waame gën a tabe géej wachim naa te séentul nu mbaa séen nanu boo xalwa ci melxati kanam nga min ko ci yow wa kullama azlama te saayu lëndëmee laylaatul humoomi guddiyaa moom njàqare yaa anaaraha mu leeral leen sa kanam gi buñ ko gisee rek suñ aajo faju day mel ne njàqare lu ñu tiis tiis ba mel ne lu nañu guddi sa kanam da koy daal di leeral anam daal lu tiis yi métti métti bu ne jàkk sa kanam rek tiis yëpp daal di teggi ko waptit naa te teey nanu nu foosan ci ay bakkan bi liqaay ci tase ga wa kullama tuyurul asa te saa yoo xam ne janaaw yaa moom njàqare laa raamat sàkku nañu waqowaan ak dal ataaraha mu naawal leen tase gi naawal leen ataara xoo jim na ba di dellu ci alliqaa sunu xol sedd na guy ci tase gi nu tase yow ndax njàqare yi li ñu metti metti mel ne ay njanaaw yu naaw day mel ne bu la tegee bët rek tase yow rek fekkoon ne njàqare ay njanaaw lañ ñoom ñëpp duñ dal yëpp dañuy naaw dem waaye duñu dal mukk mukk fa lillahi kawteefu yàlla cheikhun ab sëriñ masta jaarat boobu masta làqu bi baabi si ci buntam ba banu xaajatin waroomi aajo mooy banu bi firi ay doom yu góor waaye daa ànd ak xaajatin ñu firi ko rek waroomi aajo illaa ata ndare mu dikk wa ajaaraha te mu musal leen te mu fat leen wala wa ajaaraha te mu faj aaju ja dina cey sëriñ boo xam ne waroom soxla yi bu ñëwee rek ba làqu ci moom lépp ñu amoon soxla daal di faju loolu lu ma tey yéem la riyaadu na dan dëri tabla tuuti yooyu danañu joxe bi idni ilaahiha ci ndigal la seen buur ci maaraxa seen meññet li jaani janaaxa ñeel ajana mawat seen meññet ku laxin ci bépp waxtu béré bu sëñ bi la ne ay dëri tabla yoo xam ne fuñ toll ñu ngi sotti meññet ku dikk te bëgg meññet rek ci coobare yàlla dal di watta wat wa badrun te weer la mu niirun wi aji leeral fawqa aflaaki su dadin ci kaw fala gi càng walakin waaye bu dóorul jaw wi weeri jaww ji axaaraxaa abal na leen xusnan ab taar dafa misaali sëñ bi weer wu leer naññ tiim nag dawukaay yi biddi yi nga xam ne bu dee fii moom ak càng la maanaam weer wu leer naññ daw ci dawukaay yu càng mu ne nag weer la woo xam ne moo abal sax weeru asamaan taar bi ngay séen ci moom weeru asamaan li muy rafet rafet sëñ bee ko abal leeram ngeeg taaram bi wa samsu hudan te jantub jub la su moo sub duhaa boo xam ne janti yoor yoor xadis taraxat sàcce nañu min xaa ci moom duyaa an leer mudd xadd adda at diirub nga xam ne leeral na naxaaraxaa seen bëccëg sëñ bi jantub jubla boo xam ne jant bi nga gis ci asamaan muy leer tey ak ëllëg di wéy mboolem leeram googu mi ngi ko tibbe ci leeruk sëriñ bi mel ne leeru sëriñ bi moo tax nu am leeruk bëccëg moo tax nu am leeruk jant fooy moom alxayisu mooy xettal wax walxayisu tey taw ba alxiyaasu ba di ab xettaleekat ëllësi ba nga xam ne ataa dikk na yu zax siixu di sorel xan naf si wëlis bakkan tawalat fu ba féete naag moom mu koy sorilal xaara xaa gàcceem nga mooy xeetal yu nga xamee ne dafa mel ne taw képp ku ko dénk sa bopp nag mu daal lay sorilal lépp luy gàcce xuwa moom al akramu mooy ko gën a tedd al fayaadu kadi baawaankatu may ab rakku kainin mi gën jaa barkeeli mbindeef nafa kook dàq na xan fi amin walis ay kuréel xadd ahabat yooyu sopp nañ ko dàq na naaraxaa seen sawara ene mooy ku tedd ki nga xamee ne mu ëpp barke bu yàlla def ci moom beneen mbindeef mu ne mboolem kuréel yi nga xam ne ñoo ko sopp dàqal na leen sawaraw te ak ëllëg huwa moom al aarif mooy aji xam ja al muhyi kay aji dundal al mujaddidu tey aji yeesal sunnatar rasuli sunna yonente bi kama abdaa naka mu feeñale wa ala ak naka mu yëkkatee manaaraxaa sororam ba mooy ki yàlla may cërub xam boroomam ca na yàlla ak jaam xame ko ne boroomam yàlla may ko mu yeesalaat sunna dekkal ko yëkkati sororub sunna ba ñëpp di ko seen la xadd faasa giñ naa ne texe na nafsun bakkan xadd ahabatu bopp sopp na ko waxtada te mu roy ci moom wala samati taqoo ak sun safaan bi dawaa mi ci ak sax tabaaraxaa alkandeem tabaaraxaa daa del ci ak sun tane waat na ci yàlla ne képp ku sopp sëriñ bi di roy ci moom am nga texe safaan ba nag ku ko bëggut wan ko gannaaw moom mooy taqoog alkande tabaaraha uloofu xufaatin junni ñu way xaaraan kam xoraati mel ne junni ñu way rafle mata atat saa yu ñu dikkee kasaaxaa mu sàngi leen libaasal arniyaa i colub way woomal ña wa maaraxaa te mu xont leen nee na ñi rafle ak ñi xiif mën nañoo bari lool lu ci nekk mat junni ba mu ëpp ko waaye fu ñu ñëwee rek mu daldi reggal ña xiifoon mandil ñamaroon mada ixaxoo ay taggam xadd afhamat weedam loo nañu kulla muflixin jépp aji tepp fa aqsir gàttalal awatu nibb wala nga xaabaabal lantanaa la doo mën a jot xaraaraxaa siin dayoo tagg yi yàlla ci moom dëgg dëgg moom lu waaye mën a mën a wax tële na ca mënu ko yow mi tagg nag say boo guddal mbaa ngàttal waaye mën laa fexe moom ba àgg ca dayo ba ataala yàlla na doole yàggal ilaahul xaras yi buurub aras fii naa ci nun baqaaxoo desam nga wa kabbate yàlla na këpp xidaahu noonam ya daa iman faw wa abaaraxaate mu alug leen bi jaaxir rasuuli ci daraja yonante ba alhaashimi yi kay ko jóg haashim muhammadin te mooy muhammad fatan mbir mu muy waaju baax saada ko sang na xurbal ardi arabi suuf sa xataa nisaaraha ba seenum nisaar nee na yal na yàlla dolli fee bàyyi sëriñ bi mu gën a gudd fan te dàqal ko mboolem noonu yi alag leen ci daraja yonante bi nga xam ne yàllaa ko def mu gën ñëpp gën arab yi gën làkkat yi gën ñëpp wa bil aali ak ci daraje ñooñ ña wal ashaabi ak saxaaba ya wal muqtadi yi ak aju roy ja bihim ci ñoom alayhim yàlla na dool lay nekk ci ñoom salaatun teral ma salaamin ànd ak dolli wóolu anaaraxaa gug leeral na ko ne laaj gu tukkee ci yàlla dil ifdaali kay borom gënal ga maadaama li fekk sax na dikruhum seenug tudd yóbbay uddi leeral di yaaral ardi këri suuf si xataa xifaaraxaa ba seeni tuuŋa mu ne itam ci daraja yi mbokk yonante beeg saxaaba ya yàlla yàlla def loolu te yonante beeg saxaaba yeeg ñoo ñëpp mu gën leen a dolli teraanga ak jàmm li fekk nga xam ne tudd gañ leen tudd ñoom gaa yu baax yooyu day tax béréb yi la ndëmoon ci suuf si leer nañ moo xam kër yaa moo xam àll yaa li fekk looloo ngi am yal na yàlla saxal salaatu salaamu ci yonante beeg ay mbokkam ak i saxaabaam walahu aydan ataytu dikk naa ilal ustaasi jëm ci ustaas bi ahmada te mooy ahmad bamba shaakiyan mbir mooy aji jàmbat fa ashka te mu faj njàmbat la wa ataani te mu jox ma allësi la nga xam ne kuntu nekkoon naa baax yéen di aji sàkku ko damaa ñëw ci sëriñ bi am lu ma doon jàmbat mu daal li ma koy fajal daal may jox lépp lu ma taxoon a ñëw wa maa ji tufoo mësuma ko dikkal yow man benn bis wali te mbir moom ñeel na ma alfu xaajatin junniy soxla aw aksaru mbaalu ko ëpp illaa kaana dara mu nekk qaadiyan di aji faj lil kulli ñeel léppi soxla ya nee na su ma ko dikkal benn yoon yore soxla yu bëree bëri mel ne junni mbaalu ko ëpp ci ay soxla lu may rek fi saasay saasa mu daal di may fajal soxla yëpp jasaahu yàlla na ko dollee fay ilaahul xarasi buurub aras xëy na jasaa yi ngën ji payam nga ëllësi ga nga xam ne kaana nekkoon na jaasiyen di ko aji fay lil muxtaar yi ñeel ka ñu tànn wasax bi ak saxaaba ya pay ga nga xam ne moom la yàlla fayoon yonante bi ak saxaabaam ya yàlla na ko fay sëriñ bi alaa yëgal ne innahoo naka moom acheikhu mooy sëriñ ba ëllësi ba nga xam ne kaana nekk na mu dubataa diiru feeñ na siraajan di ab làmp mu niiran bi aji leeral lit du junnaati ñeel lëndëm ya jaaliyante aji wuññ mooy tey aji dàq ba tey lit du junnaati kama annahu nit nga xam ne moom an nadd bu mooy aji baax ja ëllësi ja nga xam ne faydu juudihi baabaanu tabam nga xat daama sax na zaariyan mbir muy aji xeeb bi jëw di sama ci tawub asamaan wal baxay ak géej ne mooy sëriñ bi nga xamee ne bi ko yàlla feeñalee dafa daal doon làmp boo xam ne du fi bàyyee ti genn lëndëm muy ku baax koo xam ne mayam yeeg tabam yi baawaan day xeebloo day xeebloo bariwaayu tawub asamaan ak bariwaayu ndoxum géej xalaa annahu ànd ak naka moom al xutubu mooy xutubu ba ëllësi ba nga xam ne laatul fii doo fekk mu jaar yéen jenn aj rawante la xooñeel ko fin xulaa ci kawe ya ajal waaw aw mu baar yéen wala aj rawante ba tey ne mooy ki yàlla jiital mu nekk ci kaw ñëpp doo gis kenn kuy jéem a rawanteeg moom di jéem a xëccoog moom cërub kaw bi ko yàlla teg waliyun waliyu la la xooñeel na ko was mi yu fadlin tawub ceebub ngëneel kamaa la xoo ni ki mu ko ñeele waliyu nadan tawub cepp lip tab waliyu nadan tawub cepp lip tab ah yaa bopp dekkal na alxuraa dëkk ya wal mawaam ya ak manding ya alwas mi yu mooy tawub ceebo alwali yu mooy tawub ceppal wax ne suñ bi ay ngëneelam dafa mel ne day am ceebu am ceppal bu tawee nag tawub ceebo dellu seppali nag moom lépp lu deexoon ci dëkk yeeg àll yi day dekkiwaat lépp doon xéewal ak naataange xabibun ab soppe la tabibun te ab docteur la rachidun ku di aj jub xayru murshidin tey ngën ji aj jubal murabbin te aji tarbiya la muraqin te aji tarqiya la kaanu ko nekk na baaniyen te aji tabax lil maj di ñeel tedd nga soppe bi yàlla la boo xam ne docteur la buy faj mboolem jàngoro yi biir ak biti di ko jub tey jubal di boole tarbiyaak taraxiyaak yéege ca daraja yu kawe ya xani yun aji womal la sani yun te aji yëkkatiku daraja la duuna xoo kook nekk na di ko yees kullu naabihin jëpp aji yëkkatiku daraja sharifun te aji tedd la zarifun kuy aji ñaw kaana kook nekk na maax andi aji far lil kufri ñeel kéefar taqiyun te aji ragal yàlla la naqiyun te aji set la aabidun te aji jaamu li maliki ci ñeel aji moomam waxad kaana te mu nekk faaniyan di aji jeex fii ci moom tuma baax yan topp di aji desit fii ci moom ku yàlla may la ba jeexaleetul dara yàlla yëkkatee koo yëkkati ba nga xamee ne mu féete kaw képp ku yëkkati ko mu dindi fi kéefër di ku set ku sell koo xam ne féete gi mu féete yàlla bolewu ca dara jax ci yàlla tàkk ba noppi nag mujj des ci yàlla ba faaw xam ne itam jeex na ci yàlla te yàlla du jeex rek daal di nekk di koy des di yooyu ni yàlla yi dese yooyu jamilun aji rafet la jalilun te aji màgg la faaxa ko kawe na final mi ci xam-xam ahlahu ñoñam wahidun te kenn la faridun kuy aji wéet lam yamal kook amut fii ci moom saaniyan jenn aji ñaareel yàlla ko booleel jalaal ak jamaal xeetu xam-xam bu ne moo ca féete kaw ñëpp man nga ne xeetu xam-xam bu ne kenn la ci koo xam ne amu ca ku ko ca ñaareel taraa da nga gis kul la ritriifin bépp sang dafa mel ne ritriif xëyin moo ci gën a siiw taxaazama kop màgg na jaaxuhoo dara jaam da nga ko gis kalmam looki mu mel ne ku ñu moom la da cheikh yi fa sëriñ bi mud kaana diirub nekk na aan yeen di ku ñu jàpp yeen luwaay yooyu rëy ak lu mu màgg-màgg ak càng bu ñëwee fi sëriñ bi day mel ne rek dañ koy jàpp yeew muy jaamu sëriñ bi ndax fa sëriñ bi nekk ak fa muy nekk day soree fa adhaate yoor yooru na dawaaman ci lu sax xalaa hudan di nekk ci njub min rabbihi ku tukkee ca boroomam wa am saa te mu gontu taaliyan di aji topp di zikri ña alquran suma taaliyan topp di aji jàng yene yàllaa ko may jub ji mu nekk mu sax ca saa yu nekk alquran jiitam yàllaa ko ko moomale mu saxoo di ko topp ni yàlla bëggi di ko jàng itam saa yu ne ataahu dikkal na ko jamihun naasi mboolem nit ñi illaa shaq yuhum ndare aji texee di seen wa illaa amiyan ak ndare aji gumba yun kiru kook dana weddi albadra weer wa baa di yan mbir mu muy aji feeñ nee na képp ku yàlla nar ci moom texe rek ñëw na ci sëriñ bi ndax buntu texe la ku yàlla narul ci moom texe rek moo ñëw ak ku gumba koo xam ne ni weer yi leer leer day wax ne weer yi gisuma ko man fekk na gumba gaa tax mënta gis weer wi mooy sëñ bi ku koy weddee ko umpale rek day ku xolam gumba day bët di gumba ba nga xam ne du mën a gis jant beeg weer wi fama lii deddi ma ñeel min wasilatin benn jotlikukaay si waa am daahi yi ndare ay taggam wa uxut yi danaa addi yàll maa lépp loo xam ne lii ñeel na ma lëxoo ñeel ko moom sëriñ bi ita xal la ndéem néew na maaliya sama alal xam naa nee na bariwuma alal waaye li ma mën a kus néew muy tagg ko daal moom laay def muy sama jotlikuwaay jëm ci moom aw ma meneen pexe ndax aw ma leneen lu ma ko jox hadaani jubal na ma ilayhi jëm ci moom allahu yàlla lamma hadaahu ba mu ko jubalee dil xaal yi jëm ci aji kawe ji wa kama hadaahu na mu ko jubale rek fii ci yonante bi hadaaniya la ma jubale ma itam leen yàlla mi ko baaxee gindi ko ne ko yonante baa ngi nii mooy sama bunti jaar ci jëm si ci man mayit yàlla ama baaxe loolu wan ma sëñ bi ne ma yow sa bunta ngi nii jëm si ci man jaaral ci sëriñ bi na ko yàlla gindee rek awale ko ci bunt ba mayit noonu la ma gindee awale ma ci bunt ba ataala yàlla na doole yàggal ilaahul xarsi buurub aras omraho dundam ga kal arsi mel ni aras wala zaala yàlla bu mu deñ mas xoodan di ku ñu texeel radiyante ku ñu gërëm wa radiyante aji gërëm wala zaala yàlla bu mu deñ ka fën di am xunti maanaam di ab làqutukaay yal jaw boobu dana làqu annaasu nit ñi kulluhum képp ci ñoom ilayhi jëm ci moom wala zaala te yàlla bu mu deñ xaadiyan di aji faj lil xaajaati ñil mboolem soxla yi wa abbu xaahu te yàlla na ko desal rabbi sama boroom amaanan muy ak mucc ak kóolute lil baraaya ñel mbindeef yi jamihim mboole seen kama abbu xaa naka mu desale aljibaala doj ya ar rawaasiya ya di way sax bi jaahi nabi ci daraja yonante bi wal aali ak ñoñ ña wa sax bi ak saxaaba ya kullihim képp ci ñoom alayhim yàlla na doon lay nekk ci ñoom salaamallaahi teralu yàlla ak musalam maadaama li fekk sax na moom yàlla baax yan di aji des nee na sëñ bi yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal aw fanam gudd rek li fekk yàlla ngi fi bàyyi aras te aras moom neen bokk na ci fii des li fekk aras a ngi dund rek aras gu yàlla gi yàlla na fi yàlla bàyyi sëriñ bi dimbali ko te muy dimbalee texeel ko muy texeel mu gërëm tey gërëmee yàlla na ko fi yàlla doolee bàyyi muy làqutukaay boo xam ne ku bëgg a raw rek dikk làqu ci moom yàlla na ko fi yàlla bàyyi muy fajkatu soxla yi yàlla na ko fi yàlla bàyyil mbindeef yi muy seen kaaraange loo xam ne ci moom la ñu amee mucc ak jàmm ni fi yàlla bàyyee doj yim sàkk ñu dëgëral suuf si rek yàlla na na fi bàyyi sëñ bi te dëgëral ko ci daraja yonante bi ak mbokkam ya ak saxaabaam ya mu ñaaral nag yonante bi ak mbokk ya ak saxaaba ya yàlla saxalal leen salaatu ak salaamu li fekk nga xam ne moom yàlla mi ngi fi te yàlla moom du jeex mukk mukk walahu aydan itrax waccal yaa daara may yata bil aliyaa fa sanadi wa naxwaha ak lu mel ne ñoom fama bit daari til mi nekk ci kër ga min sanadin benn weerukaay booy jàng shuhara ci diwaanu